toujours dans votre acte du jour de ce 17 octobre une fa jógee dañuy dem cette leader parti Pastef l'actuel promesse. ministre ginnaaw ñi ngi jëm campagne yi nga xamante élection législative anticipée Mon midi leader parti Pastef dafa fixer au minimum un million ministre bu pour ak DG dans di koy pour que mu mën a dem defi ji campagne ginnaw bu mu lancé li di campagne am avant l'heure dembou dal ci ben live bo xamanteni d'al mi ngi ko don def en tant que premier ministre bi nga xamanteni won kep ku ñu falati li nga xamanteni moy mooy ci gouvernement bi dañ ko wara wañi sa action ci politique jamono ji nga xamanteni sénégalais yi ñu ko soxla mom d'al démarré na li nga xamanteni dal moy campagne am jaarle ko dal ci ben live bo xamanteni mi ngi ko don def dembou ci page Facebook am li di listu Pastef d'al annoncé nañ dal ben démonstration de force samedi bi ñu jëm fi ci Dakar Arena ginnaw bu mu donné ben cérémonie de levée de fonds jëmale ko dal ci financer li nga xamanteni dal moy sen campagne minimum un million la ñu demandé de responsable ak fonction ba nga xamanteni ni élective la jëmale ko dal ci nomination bi ak li nga xamanteni dal mo dess ci capacité bi suñu sukkandikoo ci lepp lo xamanteni ñu ngi koy indiqué jëme ko dal ci besoin bi nga xamanteni moy majorité qualifiée la soxla ci législative li pour que pouvoir bi mëna dérouler li di sen politique notamment réduction des comptes yi ak installation haute cour de justice pour ñi nga xamanteni moy mooy ancien ministre ñu mën leen viser jëme leen dal ci ay poursuites judiciaires donc ñom dañuy ñëw pour def ay règlement de compte pas pour régler li nga xamanteni dal moy problème Sénégalais ginnaw mom ci bopam mo néwon bu kenn jox li nga pouvoir majorité nañ ko jox opposition pour que ñu mëna contre contrôler li nga xamanteni action exécutive bi donc mon modèle soit en arrière ba nopi dal di demander ministre avec ak DGM un million est ce que bëggul de laal ci xalisu état bi wala le la bëgg ak xaliss bobu la koy doyé tay pour défé ko campagne jamono ji nga xamanteni wa Matam wa Bakel ñom ñep li nga xamanteni moy dex bi mi ngi leen di sonal gisunu ko ben yoon mu yey yab ci gisunu ko ben yoon mu teg tànkam foofu ca Ziguinchor bi nga xamanteni barki bërki fofu foofu rek nga xamanteni ci ca Bignona benn village pour ñu am ben ambulance médicalisée il a fallu ko seen doomu rew organiser concert pour ñu xol recettes yi ñu koy jëndé koku tay mo leen fàttee ñew di xol naka lay def pour am ay millions pour dépenser ko ci ay campagne électorale yo xamanteni c'est inutile su dé amna force amna majorité ñom ñoo am 54,28% sénégalais ñom lañu wolu def nañu bilan bu baax est-ce que jarna tay ñuy wër Sénégal di defaat campagne ndaxte barki dembu lañ def campagne sénégalais jox leen majorité donc yakana ni 1 million yoyu ministre yeeg DG yi di cotiser djelon ko jëndé ko ambulance médicalisée yóbbu ko ci yenn diwan wala dem jàppale ko ñi nga xamanteni ño nek bakkel wala nek Matam di dugg ci biir ndox bi ay magum jëm di yewu di lekkee ci ndox di agné ci ndox je crois que lolu mo gëna metti donc sénégalais ñom ño wara war a li nga xamanteni moy la réalité est-ce que ñi bëgg nañu réew mi wala bëgguñu réew mi à vous de juger Thank <laughs> you.